Assalamualaikum mbokki géewul Assalamualaikum mbokki Senegal, Assalamualaikum mbokki internet yi tay ji le mercredi le 17 juillet 2024 ñi ngi fi ci ngumba ngeewul ci ëtt bi nga xamne moy mooy ëtt Cheikh na Cheikh sadd li waral sun taxaway fi nak muy tay bis bu am solo bi nga xamne mom lañ daan def at mu nek buñu tam xarité ba ci suba ga muy ziar bi nga xamne mom moom la ñuy defal alwali fële ca Keel tey ñu fekk fi ci li nga xamne moy euh, Cheikh xalifa bi di ba ay dara ñu war a départ fii ngeen gis euh, délégation baa ngi noonu ñu war a départ fii ànd ak ki nga xam ne mooy Chérif Alwali Mané Ndiaye di war a dem fële nga xam ne mooy Kelle ngeen gis ñi ngi noonu ànd ak euh, délégation ba am solo bi nga xam ne moom la ñuy démarrer kon ngeen ànd ak ñi nga xam ne ñooy waa Gueoulart TV ànd kook euh, Gueoul FM lépp loo xam ne xew na fii rek dañu leen umpu ci li nga xam ne tey mooy bis bu am solo bi ndax teewaay li nga xam ne ñoom waa Gueoulart TV ak lépp loo xam ne xew na fi rek danañ ko fa joxe kon ngeen topp ñi nga xam ne ñoom ñoo waa Gueoulart TV ak Gueoul FM ñu jël li nga xam ne tey moom moo xew fii tey ci li nga xam ne moom mooy ëttu Cheikh na Cheikh Saad Bou ñu war a dem ba fële nga xam ne mooy Kelle kon ngeen topp Gueoulart TV waaw kon di DJ Ousmane ñu ngi waaj li nga xam ne mooy yoon wi ñu gis ne tey seen teewaay eh, nekk na fi muy eh, li nga xam ne mooy eh, Gueoul FM ak ñi nga xam ne ñooy waay tey lan nga ñu wax tey ci bis bi nga xam ne moom la ñu a démarrer waaw mi ngi noonu mu mel ne comme ni ñu ko rek mooy euh, Chérif Alwely yaakaar naa ni euh, kenn du moom euh, di nuyuwaat waa Ngumba ak li ko wër mu mel ne Alpha danoo ne ci yoon nii xam naa ne incha allah comme ni ñu ko waxee rek mooy day daal di gërëm aar ak géewul FM parce que tamit wax dëgg yàlla ni ngeen di gérer mbir mi ci géewul yaakaar naa ni ñëpp a ngi koy rafetlu te tamit mu nekk liggéey boo xam ni liggéey bu rafet la parce que ñun amuñu lu dul géewul Euh, amuñu lu ëpp géewul kon yaakaar naa ne événement yu mel nii comme ni ngeen koy taxawee ni day nekk loo xam ne tamit lu rafet la macha allah kon ñu daal di préparé li nga xam mooy dem euh, fi xam mooy ki nga xam moom mooy Chérif Alwely Maana ko defee ñu daal di àndandoo rek comme ni ko Alpha waxee léegi rek ah, mooy Ousmane di li nga xam ne mooy directeur Géewul FM ngeen gis mu ànd ak ñoom ci liggéey bi kon ñu ngi dem fële ci biir rek ànd ak ñi xam ne ñoom ñooy waa waa ayca il leen a fekk si waa Thiel waa Thiel euh, nanu préparé ba xam ne nag euh, fii ci euh, li nga xam ne mooy Kell Gueye gis nañ cortège bu am solo bi nga xam ne moom la ñuy taxawee fii ki nga xam ne mooy Chérif Alwali Mané moom moo nekk noonu ci kanam ci 4x4 bu boobu ngeen di gis mi ngi noonu dugg si fi nga xam ne moom mooy Kell Gueye ngeen gis délégation bu am solo bi nga xam ne moom la àndal fii ci li nga xam ne mooy Kell Gueye ngeen gis noonu délégation bi ngeen gis euh, ñi ngi fii di waaj a dugg si fi nga xam ne moom mooy Guelle Gueye ngeen gis bokk jullit yi ñu ngi noonu di ko teew si di ko teeru si fi nga xam ne moom mooy bis bu am solo bi nga xam ne moom la ñuy def ngeen gis ko noonu mi ngi noonu di ñëw moom moo nekk ci 4 fii xam ne tey mooy bis bu ngeen gis ko noonu mi ngi noonu di dugg si mi a jëm fi nga xam ne moom mooy Kelle Gueye euh, mi ngi noonu nga xam ne mooy Kelle Gueye Chérif Alwali Mané Ndiaye mi ngi noonu war a jëm si fi nga xam ne moom mooy Kelle Gueye di dugg si moom moo nekk ci 4-4 bu euh, noir boobu ngeen gis mi ngi sol drap bu weex teg mi ngi sol drap bu bleu baxa teg ci li nga xam ne mooy col bu moom la ci teg ngeen gis ko noonu ngeen gis noonu Chérif Alwali Mané Ndiaye mi ngi noonu di ñëw cherif mi non di ñew di dugg si ci fi nga xamne tay moy bis bu am solo bi nga xamne mom lañu def fi ci li nga xamne tay mom moy kel Kell ngeen gis borom mo tay ñi ngi non di perto ki nga xamne moy euh, cherif euh, ki nga xamne moy cherif Chérif Almalimane mi ngi non di ñew mi ngi non di dugg si ci li nga xamne mi ngi non di li nga xamne tay moy bis bu am solo bi ngeen gis len nonu ngeen gis nonu ngeen gis nonu cherif ngi non di ñew ngeen gis ñi ngi non di ñew cherif ngi di ñew and ak délégation bu am solo ngeen gis ñu déparé géewul ba léegi ci ñun nekk atum atum ci képp koo xam ne rek yaa ngi fii ci réew mi yaa ngi ci àdduna kon na nañu ñu ngi dugg si nañu ci fi nga xam ne moom mooy nga xam ne moom la ñu def moom la ñu def Chérif a ngi noonu waaw gis nga ñu ngi fii ci li nga xam ne mooy ñu ngi fii ci li nga xam ne mooy Kell Gueye di bis bu am solo bi nga xam ne mën nañu def fii ci Kell ñu gis ne Chérif Aliou Mané Mané Ndiaye mi ngi doon door dugg si Chérif mi ngi doon door dugg si ci sam solo bi te ni ki sol drapeau bu la teg ci a noonu ci solo bi nga xam ne mooy jox fii ci Njeel muy gis yoo xam ne gis nañ képp xam ne jullit nga rek tey teew nga fii ci li nga xam ne mooy ci sam solo ne moo lañu def Chérif a ngi noonu Chérif a ngi a teew war a dugg si ci bis am solo bi nga xamne mom lañuy def fi ci kel gëna na al Alwali Mané jaay mi ngi noonu door a dugg si ci bis am solo bi nga xamne mom lañuy def fi ci kel Chérif a ngi noonu Chérif a ngi noonu door a ñu fekk ci ko fi ci bis am solo bi nga xamne mom lañuy def fi ci li nga xamne mom moy kel Kell Chérif ngi ci biir ak délégation am solo bi nga xamne mom lañuy mom lañuy def fi Chérif mi ngi nonu momo sol eh, li nga xamne moy eh, dara bu baxa sol tek ci li nga xamne momo mi ngi nonu teew ci teway bu am solo bi nga xamne cherif mo nek nonu sol dara bu baxa teg ci kol bu wex mi ngi nonu ci bir eh, li nga xamne auto bi fasiyene wacc ci ñing koy ubil porte bi ñing ngi ubil porte bi jëwrin andala mbeng mo nek ci buntu bi mom bu egsee rek bu jegee rek xamnañ cherif mi ngi waja wacc cherif nga non di waja wacc mi ngi wax ak ki nga xamne mom moy sëñ Andala Mbengue mi ngi taxaw Chérif a ngi noonu Chérif a ngi noonu di génn Chérif wàcc na mi ngi noonu di wàcc mi ngi noonu di génn si mi ngi noonu di génn si Chérif a ngi noonu di génn ànd ak uh, ànd ak ànd ak monsieur le maire Cheikh Ndiaye monsieur le maire moo ko wàccee a ngi noonu uh, ngi noonu moom moo sol uh, li nga xam ne mooy drapeau ba xaw a teg ci col bu weex bi mi ngi noonu Chérif a ngi noonu di dugg si ci biir ànd ak ki nga xam ne moom mooy Cheikh Ndiaye di maire fi nga xam ne mooy Kelle monsieur le maire mi ngi noonu di dugg si teero ko ci li nga xam ne mooy bis bu am solo bi ngeen gis ko noonu délégation bu am solo ngeen gis mi ngi noonu ngeen gis noonu ngeen gis noonu ñu door a teew si ci bis bu am solo bi a ngi noonu di ñëw Chérif noonu di ñëw mi ngi noonu door dugg si fi nga xam ne mooy kii ngeen ànd ak délégation bu am solo ngeen gis ko noonu ci dal gi ci tey ngeen gis noonu mi ànd ak am solo bi nga xam ne moom lay def fii ci li nga xam ne mooy Kell mi ngi noonu ci dal gi ci tey gi gis ko noonu mu ànd ak mbokki taalibe yi ngeen gis ko moom sol dara bu bleu bi sol ci li nga xam ne mooy kol bu weex bi mi ngi dugg ci nag ci jumaa ji mi ngi dugg ci jumaa ji fas yéene ziar ci biir ngeen gis noonu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 اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوزنا ما كان في تلاوته من سيء ونسيان أو تعريف كلمة الموديه أو تخير ناف أو تقديم أو تاخر أو سيادة أو نقزان أو تاويل على خير ما أنزلت أو ريب أو سك أو تعجيل هند تلاوتي أو كسل أو سرات أو سيق لزان أو وقوف بخير وقف أو إدغام بخير مدغام أو يسار بخير بيان أو مد أو تسديد أو أمسة أو جسم أو إرهاب بخير مكان فكتب منها على التمام والكمال والمواسب من كل الآن فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواقسنا يا مولانا وارزقنا فدل من خره قول ما لا داعي وقلب ولسان وهب لنا به خير والسعادة وبسارة والأمان ولا تقلم لنا بالسر والسقاوة والضلالة والطغيان ونبينا قبل المنايا النوم خفلة وكسلان آمنا من عذاب القبر ومن سالم منكر والناكر من أكل ديدان آمنا وأمن من عذاب القبر ومن سالم منكر والناكر من أكل ديدان آمنا وأمن من عذاب القبر ومن سالم منكر والناكر من أكل ديدان وبيت وجانا يوم وتهر قابنا من نيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسق ميزاننا بالعسنات وثبت أقدامنا على سرات واسكنا في وزة الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا وارزق جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا الضيان استجب دعانا بحق التوريت والإنجيل والصبر والفرقان أهتنا جميع ما سحلناك به في سر وليلان وسدنا من فضلك الواسي بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن, يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب السرحة والبران برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بقرآن عظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت سميع عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم سينا بسنة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلحة القرآن وافنا من كل بلاء الدنيا وحاسب الآخرة بغرمة القرآن وأدخلنا جنة مع القرآن وأدخلنا جنة مع القرآن وادخلنا جنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد باقي القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا خرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة سفيان وعلى سرات نورا وإلى الجنة رفيقا وبين بيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وحافنا بهناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بسواءة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفرنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا أسى الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جساء وبكل حزب عزنة وبكل نسم نحمة وبكل رب رفعة وبكل سمن ثناء اللهم ارزقنا بالآلف ألفة وبباء بركة وبالتاء توبة وبالساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالعاء حكمة وبخاء غلانا وبدال دموعا وبالسال سكاء وبراء رحمة وبالزاي زلفة وبسين صنعاء وبسين صفاء وبزاد صدقا وبالضاد ضياء وبتاء تحرة وبتاء وبتاء زفرا وبالحين حلما وبالخين خناء وبالفاه فلا فلاحا وبالخاف خربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم معيزة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبلا هداية وباللام الألف لقاء بلا يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله تائرين أجمعين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 أجمعين حامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خسر المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خسر المسلمين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 Assalamualaikum. kàddu yi du gudd kàddu yi nuyo ak siar ak sant gannaaw ba lolou wé yit ñu ñaanal ko yalla guddu fan ak wër ndax bis bi ñu tanal. dafa nek bis bo xamantene Yalla dafa dogal mbooleem nat yonenti yep yépp ku ci ne amon nga ci natu natu bala yalla natu wonit ci bis bi ci la yalla dogal nga muccion ci mu wëlbeetiku mom ci bopam dakk ko nak def ko siyaaru kéel muy sagu Keel di sagu tund wi di sagu dëkk bi yépp nag tabaarakallaahu ñu di ko tiitaroo ñuy bégit ci moom di jëtit ci jataayam ndax it yàlla dogal na moo fi moom la ñuy xoolee maamam yonente bi yàlla dogal na moom lañ koy xoolee sallallahu alayhi wa ba tax na buñ ko gisee it rek dañuy bég yàlla dogal itam muy kilifa gu bëgg njaboot di kilifa gu miin njaboot tabaarakallaahu xéebalul it njaboot soxlaam ñu di ko nuyu bu baax di ko siyaar di ko yóbbante nuyoo it ca ña nga xam ne ñooy magam yu baax ya diggante sa sëriif ba ak sëriif saaya tabaarakallaahu amoon nañ fi xew-xew boo xamante ne sunu mag ju wàññi la woon sëriif saaya keroog xat na waaye keroog li muy xat-xat dafa ñëw te dañuy wax wolof dafay wax ne lu ñëpp bokk loo ca am mu doy la keroog ca armeel ya lañu ñu fekk la muy guddi guddi moom mii mu xëy ca suba ñëw teew fa sànni fa ay kàddu ñu kontaan ci rafetlu ko lool dafa am nattu boobu nag bu la dalee am na ñooñu boo leen gisee lu nattu ba gis gis way ba day wayaf ndax ñoom ña nga gis mooy tax kon nag ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan yàlla may ko wér taalibe yi nga xam ne ñoo topp ci gànnaam it ñoom yàlla may leen gudd fan ak wér taxawaay bii ñu yàgg koo taxawee ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon Serif jërëjëf yal na yàlla yàggal la fi yàlla yàggal sa taxawaay yàlla dimbali ci sa mission nga doxal ko ni nga ko bëgg a doxalee ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa di nuyu it ñi nga xam ne ñooy ay surofaaw nga ànd ak ñoom ak ay kilifa ku mel ne Cheikh Biram ñii ak ñi nga xam ne ñoom nga àndal ñëpp ñoom it ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di siyaara di leen wax nag dal leen ak jàmm ñëw ngeen ci seen dëkk tabaarakallaahu kon nag ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaara di leen ndokkeel ñaan leen yàlla gudd fan ak wér yàlla def jàmm ak sutura ak xéewal ak tiraanga tabaarakallaahu jërëjëf. jërëjëf dañ lay jox kàddu bi rek ndax gis naa ñi ci gannaaw ñoom ñépp boo wax ñu nit ñi kàddu gi daal Chérif fa ko yore dañ lay jox kàddu gi nga dalal sang bu tedd bi ci ëttam ci këram bu ko defee ñu jox ko ndax tàng na dellu nag ca kër ga. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu te di leen baal ah kaay wax nag dafa jafe kon li ma ñaanoon daaw laay ñaan ren rek yàlla ma yàlla dimbali ba mën a wax lu nit ñi mën a dégg kon nag ñu ngi leen di shérif ñu ngi lay ziar ñi ngi lay ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay di ñaan tamit liñ fi wàccee ci kaamil yàlla na ko yàlla nangu te xaasal ci suñu waajur yi jiitu shérif ñu ngi lay nuyu ah, di nuyu suñu xalifa suñu chef de village muy moor di nuyu suñu maire du nuyu suñu xalifa aadam yi toog ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di balu àq bu baax a baax a baax di la xamal ne Chérif ñëw nga sa dëkk sa kër yow yaa war a dalalaate sax am en quelque sorte parce que fii amul kenn ku la fi ëpple yaa moom lépp boo ko kook kenn kon ku fi ñëw yow la fi ñëwal xam na yow yow nag yaa ñu fi ñëwul mais ku fi ñëw yaa ko fi indi yaa tax mu ñëw fi kon lépp yow yaa ko moom kon yow ñu ngi sa gannaaw loo wax loolu lañ def loo wax loolu lañ loo tere bàyyi nañ loolu wumpa la woon nag ñun ñii tey fi daje loo suñuy waajur la woon moom Tafa Mbeng mi papaam kii papaam sama papa papa aada kon ñun ñu fi nekk nii suñ papa ñoo fi nekkoon ba yàlla def ñun ñi tey jii ñu àndandoo nekk fii ñun ñu ngi ñaan yàlla na ànd bi yàgg yàlla na yàlla yàgg noo taxaw parce que lii yombut yàlla rek moo ci ma yombul ko yàlla rek moo ci jàpp kon bu ci yàlla jàppee ñun ci mit ñu continuer jàpp ci yàlla dimbali ñu ñu ngi lay ñaan nga ñaanal ñu yàlla ànd bii ñu àndandoo ñun waa nga ànd yii nga xam ne luy mbirum lislaam ci ñoom lañ ci ñoom lañ ko waaw bada waaw bada bada ngi nii bada kay jëru président ñëpp xam nañ ko bala ñoo wax benn kàddu daa ñëw ndax cër boobu moom moom moo ko moom buñ ko ko joxulit moo ko moom te dañ ko koy jox par force parce que loolu moo jaadu kon nag ñu ngi leen di boole ziar yéen ñëpp di leen baal wax wax bi nag du gudd ndax. ñu ngi nuyu Chérif di ko dalal jàmm comme ni ko Chérif mi waxee di nuyu sunu mbokki ngànna yi di ci jiital imam Moustapha di nuyu mbooloo mi fi teew ñëpp di leen wax ni bisimilah fii ci commune Kelle Gueye euh, dama ne woon sax damay bàyyi ba ngoon dañu jël parole benn euh, bu askan wi yëpp dajee ñu jël kàddu wax. waaye liñ ci wax rek du bari rek mooy di la sant di la gërëm comme ni ko imaam Tafa waxe ndax euh, lii yombul tey danoo waroon a xëy ñu ñëpp di la wëri di la seet si boo dikkee fekk si fu nekk nag dang ñoo sagal moo tax comme ni ko Talla waxee ñun ñëwuñu fi ngir cëru meer ñun ak waa Kelloora yàlla suturaal nañu ak commune Kell bépp ak commune bi ñëpp ñu nekk benn. yàlla defit nag ñu bokk li ñu bokk nga xam ne tey li ma lay wax rek am na loo xam si boo fi dee ñëw fekk sama gàcce la taxawaay bi nu war dañ ko war a taxaw te lépp loo xam si jàpp nan ni mooy doxal ziar bi lépp loo xam si jàpp nan ni euh, ziar bi dana egg fi mu war a egg incha dana ci xar suñu tànk tubay ànd koog mbooloo mi ànd koog waa Kelle ak waa Kelle Loro incha allah loolu daal lañ ciy wax ba ngoon wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaw jërëjëf monsieur le maire Chérif ne loolu ëppoon naa bañ a wax de ëppoon naa bañ a wax Chérif walaay Guèye kon Cheikh Birame bisimilah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبكي كيل ak li ko wër asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ci ndigalu kilifa gi ñu àndal di Chérif Alwali gara doomu Cheikh Mouhamed Fadel doomu Cheikh Al Maxf doomu Cheikh Cheikh Saad di wax ni ñu yëkkatil ko kàdduy cant nee li ñuy jëkk jiite jëkk jiital ci wax ji dañuy wax rekk alhamdulillahi rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla bu baax mi ñu mayoon ñu fekke ashura bi daaw ci ëtt bi mayaat ñu ren ñu fekke ko am na ñu ko fekke woon daaw ren fekkewuñu ko du seenug yaafus shérif nee na nun ñi ko fekkee ti du sunu njàmbaar yàlla la neex ku fekke ren ba déwén rek shérif neena war nga sant yàlla kon dañuy wax alhamdulillahi rabbil alamin amna ku aji won màkka taxaw taxawaayu arafa wax alhamdulillahi ala ni'mati alislam wa kafa biha min ni'am ma ngi sant yàlla ci xewal gi yàlla xewale ma di l'islam te doyna sant yàlla ca déwén sa mu ajiwaat waxaat loolu dégg baat bu naan xaaral ñu bind yoolu daaw booba ba léegi sérif nee na seen kaamil bii ak kaamilu daaw ba ak daaw jéeg ak yi ko jiitu ba léegi malaaka yaa ngi koy bind jeexul kon nee na mi ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin di jiital ci nuyoo bi nag imaam Moustapha Sall mi ak ñi mu àndal ndax nee na yàlla dani wa atul buyuuta min abwaabiha bu ngeen di dugg ci kër na ngeen jaar ca buntu ba te nee na tey yàlla bu doon wàcc fii ci jàkka lay dal bu amee ku koy dalal imam bala ak staff bi kon imam Moustapha Sall Chérif nee na mi ngi lay nuyu bu baax ci xatmu bu jotale bii di ñaan yàlla alquran ji ji ñu fi jàng yal na ko yàlla dotti wasaare ko ci tundukeel ak li ko wër fu waay jógee rek moo xam fu sori la ak fu jege yal na la yoolu alquran bi topp bi jaay seydina muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na mi ngi ciy teg mbokkam di xaritam di lépp di ki nga xam ni mooy monsieur le maire di Cheikh Ndiaye nee na woon ñu sant ko bu baax a baax waaye dama ko dey ni ko la shukra ala waajib nit ki lu ko war bu ko defee kenn waru ko cee sant Cheikh Ndiaye bu nekkuloon meeru Kéelit te dëkk ci tund wi boo wootee kenn waru ko caa mën kon Cheikh Chérif nee na mi ngi lay sant di la ñaanal loo man ren yàlla na nga man lu ko ëpp bi jaay Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam te di la wax ni rek fi nga teg sa tànk foofu la يلا ميغا خامني كومو ni ku mu jàppale nga dem te wa man nasru illa min indillah nee yàlla na la ko yàlla defal bi jay sayidina Muhammad alayhi salatu wa salaam di ci tek borom dëkk bi di bay Mor gey di ko ñaanal bu baakha a baax ndax kat xamnañ ni bay Sidi moko jur bay Sidi bay Cheikh Abdou gey moko jur te bay Cheikh Abdou gey Chérif nee ña yenn woon néew ya sunu maam Cheikh day ca la sulli woon moom maam Cheikh Abdou Guèye ca la kon nee na nag da nga jaar rek fa say baay jaaroon fa say maam jaaroon kon nee na ni nuyu bu baax a baax di ci teg sunu baay Bada Jingo di ko nuyu bu baax a baax a baax comme ni ko Chérif waxe léegi rek kenn du dogal dara kenn du wax dara ci Kelle lu dul ci ndiggalam la wala ci teewaayam waaye di nuyu ñi nga xam ni ñoo jiite oto yi. di Moustapha Mbeng ak Taala Njaay di leen ñaanal ñoom it yal na leen yàlla musal ci ayu oto nii ngeen ko teeroo jële ku ngumba andi ko fii yal na leen yàlla defal kenn ku ne nga am sa yëfi bopp bi jaay Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam nee na mi ngi leen di nuyu bu baax di nuy daayira aljamariya al islaamiya di nuyu section yi nga xam ni ñoo làmb tund wi yëpp di leen ñaanal bu baax a baax it yal na leen yàlla defal jàmm bu baax a baax di nuyu Cheikh Ablaye njaay moom it di ko ñaanal yal na ko yàlla defal jàmm nee na ñaari baat rek lay wax ci bis bi mooy yërmande ji jëkk a wàcc ci kaw suuf ci bisu Asura bi la kon nee na yal yàlla yërëm leen yéen ñëpp defal leen jàmm bi jaay Seydina Muhammad nee na bis bi ñu nekk tey te sunu bàyyi Moustapha wax ko neena ci la yalla muccele won yonti yalla ibrahima ali salatu wassalam ci sawara wa kon yalla na leen yàlla ci yeb te defal len jamm bi jaayi sayidina muhammad Ali salatu wassalam neena mi ngi nuyu bu baax bay Cheikh Ablaye gey mi ngi ci mbolo mi fu mu meuna nek rek Chérif neena bay Cheikh Ablaye ñi ngi lay fekk fi nga tok dila jox sa waccu way dila ñaanal yalla na defal la jamm ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na moom kéel ay xaritam lañ jàpp na leen xarit te xarit ji gën na koo confirmer ci bis bi ndax ci bis bi kat ci la yàlla tànne woon maamam ibrahima xalil mu nekk xaritam ci wa taxasallahu ibrahima xalila kon chérif nee na duñu guddal ñoo ngi ñaan yàlla mi ni ñaan leen ma ma may leen ci bis bi nga xam ni dafa dajale yu bari nag ci la maamam Cheikh Mouhamed Fadel wul maamin génnoon àdduna ci fukki fan yii la ci Ashura ci lañ boome woon maamam Ousseynou ca Karbala ba imaamul Busayri ni kullu yawmin wa kullu ardin li karbi minhumu Karbala wa Ashura kon nee na bisu mbégte la waaye bisu naqar la ñoo ngi ciy fàttaliku sunu maam yooyee ñu boomoon ca Karbala te dara taxuñu leen ñu boomoon leen lu dul bëgg àdduna rek kon noo ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla defal leen jàmm yéen waa Kelle ak li ko wër Chérif nee na képp ku ñëw ren sa tànki ñëw yàlla na yiw waaye sa tànki dellu yàlla nay fari bàkkaar wax nañ ci bis bi ku ci ziyaare boroom xam-xam ñu ziyaare ko ci ngeen ñëw kër ga ñëwaat fii nit ñi ñëpp toog ay ulamaaw lañ fekk sëtu yonent bi fii mu toog ñu jàng xatmu bi saafoonteeg mom kon nee ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla defal len jam nee nak bis bi du bisu qadir yi rek bisu wa keur alaaji malik sila bisu wa keur mam serigne touba la bisu wa keur tariqa yep la ndax ad diinu laysa lil tijaaniyin wala lil qaadiriyin wala lil muridiyin inna diina inda allahi al islaam nee na bi dal kep kuy wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Cherif nee na yaa ci bis kon nee na mi ngi ñaanal ñep di wax yàlla na def jam nee mi ngi ñaan comme ab taw bi jëk wacc ci asura la wacc bu fi joggé na nu yalla may ndox mu gaaw te and ak jam ak barké bi jaay sayidina muhammad يالا من نكو يالا نكو يالا دفل يالا لم يرد جيخ ما عندكم ينفع دو ما عند الله باخ يالا لم يرد جيخ لن يرد موي جيخ تنين نيان لين ما ماي لين نين ميغي نيان بني في جوغي يالا يالا ماي ني ندخم جام نويت بسون بروم مسا باركل يالا نتي يالا بولي نويت بي بي جاي سيدنا محمد فواي نكرك نغتال اللقي كلفة جي دف نيان بني ديل سواتي بنجم السلام عليكم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 صدق الله مولانا العظيم وبلغ النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله moom la jigéen ñi nekk di def li nga xam ne mooy teraanga yi ngeen gis jigéen ñaa ngi noonu di toog ci bis bu am solo bi nga xam ne moom la ñuy defal ki nga xam ne mooy Chérif Alwely Mané Ndiaye fii ci Kell Gueye ngeen gis ngeen gis sunu yaay yi ñu ngi noonu toog ngeen gis ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la ñu nekk nekk ci bis bu am solo bi nga xam ne moom la ñu defal ki nga xam ne mooy Alwely Mané Ndiaye ñu janoo ñi nga xam ne suñu mbokk jigéen yi gis lépp loo xam ne rek ñoom ñi ngi ci euh, ci bis bu am solo bi nga xam ne moom la ñuy teew yaay booy ñu ngi lay nuyu ah, maa ngi leen di fay sëñ bi ah, tey ñu fekk la nga teew bi nga xam ne moom defal ci ah, kontaan rek ci bis bi Alwely Mané Ndiaye moom Alwely Mané Ndiaye ñëpp la waaw ñun ñoo ngi dëkk ngaan gi waaye ngaan ak kiel benn lañ wax dëgg yàlla kontaan ci bis bi rek di ko rafetlu bu baax a baax a baax lu wax nag nga di remercier tamit ngeen ba léegi ñu ngi fii ci li nga xam ne mooy yaay booy ñu gis leen ngeen nekk ci waañ wi ci liggéey bu am solo bi nga defal bis bi nga defal alwali lan nga wax ci bis bi yaay di sant ñëpp di am kontaan ci bis bi nga xamne ne ñoo ngi am fanweeri at diko téwé yalla dogal nak ñun ñu fété walu wañ wi ñun suñu nat ko ñu ko andal di ñaanal bu baax suñu wa suñ way dawlu yi yalla yërëm leen te yeexanu mu melni suñu suñ soxnañ ko andalon doon liggéey di gërëm nak suñu waangaana sal ñi nga xamne ñoom lañ andal liggéey bi sha allah ñett fan yëpp kenn lekkul gën naan ñu ngi bis bi rek bëgg mu baax lépp rek di ma sha allah ba alwali ay dara duggé suñu dëkk bi rek la dëkk bi changé la dëkk bi yokk kon dañ koy ñaanal yàlla mu gudd fan te am wér bu baax a baax ndax waa Kelle gépp kontaan nañ koo gisoon mu nekk Kelle rek mel neneen soppeeku na ginnaaw yàlla ak suñu sërif bi moo tax kon ñu ngi koy ñaanal yàlla bis bi mu yàgg koo taxawee di ñaanal ku ñëw reen bu déwénee nga ñëw di ñaanal ñëpp jàmm jërëjëf. Penda Sow Penda Sow ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci kàddu am solo yi nga xam ne moom lañ yëkkati euh, euh, ñi ngi fii ci léegi ci jëm ci ñi nga xam ne mooy jeunes yi ngeen gis taxawaay bu am solo bi nga xam ne jeunes taxaw nañ ko fii ci Kelle ngeen gis leen leen noonu ngi nekk ci liggéey bi liggéey bu am solo nekk ci taxawaay am solo bi nga gis euh, jeunes yaa ngi noonu nekk ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la ñuy liggéey di liggéey boo xam ne gis nañ seen taxawaay ñu gis kon xam naa dañuy laaj jeunes yi rek seen taxawaay ci liggéey bi naka lañ ko gisee sëñ bi ñu ngi lay nuyu maa ngi lay fay waaw ñu fekk leen fii nga nekk ay ndaw nekk ci liggéey bi nga xam ne Chérif Alioune Mané Ndiaye bis marabu la jeunesse tey woote fii ci Koungheul Gueye di ko nga ñu wax bi ñu sante yàlla julli ci di sant suñuy waajur di sant Chérif Alioune bu baax a baax a baax ci bis bi nga xam ne moom la ñu indil fii ci Koungheul di leen sant tamit yéen waa média bi ndax tubaarkaale bis bi rëy na te fi mu àgg fépp yéen seen loxo jógu kon ñu ngi leen sant bu baax a baax ñun nag moom euh, fii yàgg nañ fee nekk di fi ànd ak euh, juróomi dëkk yëpp di fi euh, defar xéwal yi rawatina waa Ngane ak yéen gii nii ñoom moom wax dëgg yàlla jàmbaar lañ ci lool lool lool lool lool ñun daal ñooy ndaw yi Cherif Alwely dara di ko jàppale bu baax a baax nag lu mu wax loolu lañ wax lu mu ñu déet ñu bàyyi rek. lan ngay wax sa moromu yi nga xam ne ñu ngi bàyyi seen euh, euh, seen soxla yi ci nekk ci gox yi nga xam ne ñu ngi nekk ci wetu Kelle Gueye tey ñëw jàppale ci bis bi nga xam ne moom ngeen def fii ci Kelle waaw waaw ñooñu liñ loolu ñu def lool rek lañ war a def ndax Chérif euh, Alwely moom Chérif Alwely ñëpp la wax dëgg yàlla moom bu fi ñëwee sax Kelle rek la wax Kelle nag boo ko waxee moom waxuma la juróomi Kelle yi rek maa da laal commune bi yëpp moom moom xamul Kelle Gueye xamul Kelle Lora xamul Kelle Ndiaye xamul dara mom Kell rek mom am ba ñaga sax mom ba ñepp ko sopp dal mëno xamé ab talibem mëno xamé ab soppem alwali daal alwalim ñëpp la wax dëgg yàlla moom. waaw ñu wax moom mi monsieur le maire moom dañ koy sant di ko gërëm moom ndax euh, mom japp na ci jappati ci jàppate ci te at mu ñew rek mom nam ci ñewé day day day day day gëna taw fii wax dëgg yalla mom mom duggal na ci loxoom bu baaxa baaxa baaxa baax bañ xam ko ñun waa dëkk bi yëpp xam nañ ko waa commune bi yëpp xam nañ ko di ko ñaanal rek li xam ni moom la nësër ci commune bi nii yàlla nak ko yàlla yombalal yàlla may ko fi ay mandat yu bëree bare bare bare mu jiite commune bi ba ni commune bi wut leen keneen mu jiite leen man maa nga ci leneen wax dëgg yàlla ñun ñu ngi koy sant ko gërëm bu baax a baax yàlla ko yàlla yàggal yàlla ko yàlla wéeral li mu bëgg ci commune bi yàlla ko yàlla defal incha allah Modou Gueye la Modou Gueye ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci kàddu yi nga xam ne yëkkati ñi jot nañ fay wax muy jël nañ jigéen ñi jël ñi nga xam ne moom mooy moom mooy Modou Gueye nga dégg kàddu am solo jeune la bu nekk fii ci liggéey bu am solo bi nga xam ne mu ngi ba am solo bi nga xam ne ko fi ngeen gis liggéey bi tax ñu gis sawaay moom nekk koo xam ne jàmbaar lañ gis ko euh, muy nekk géewul dafa ñëw tey ñu fekk ko ci liggéey bu am solo bi nga xam ne euh, ñu nekk ci mbanam bi tey incha allah euh, lan nga ñuy wax tey ci bis bu am solo bi nga xam ne def ngeen ko fii ci kii waaw rek kontaan bis bi rek yàlla di ñaan yàlla yàlla na jëm kanam hmm. hmm. lool barke sëñ Tuubaa waaw ñu gis ñu gis seen mbokku chauffeur yi li ñu def tey organisation bu am solo ñu jëlee ko ba géewul ñëw tey fii ñoom lan nga leen di wax ñoom chauffeur waaw loolu moom daf seen wareef la mm. seen wareef la ndax ñoo bokk sëriñ bi mm. tamit ndax amuñu lu dul sëriñ bi ñun ñëpp mm. amuñu lu dul sëriñ bi liggéey sëriñ bi rek lañ am kon nañ ci jàpp bu baax a baax ne xam ne sëriñ bi rek ko jar leneen jaru ko waaw tamit jàpp loo bàyyi daal xam ni sërif alwali jar na lu ne ak Seera Fall ñoo bokk sëriñ Tuubaa ñoo bokk sëriñ Tuubaa bokk Cheikh Sadbu kon nañ nañ ko rafetal bu baax a baax bis bi gën jëm kanam mu gën a rafet tamit incha allah waaw kàddu yaa ngoog tur naka la Njaga Sine Njaga Sine ñu ngi lay jaajëfal baax kàddoom sa la yëkkati nga xam ne yëkkati nga ko fii ah, ngeen gis ne ñu ngi ci waañ wi nekk ci li muy tàng lépp ah, jigéen ñi ak góor ñi ñoom ñëpp ñu ngi ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom moo ñuy liggéey ngeen ànd koog ñi nga xam ne moom waaye Géewul FM ànd koog ñi nga xam ne mooy Géewulaat TV ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñi ngi koy liggéey kon gis nañu jël nañ li nga xam ne mooy jeunesse bi jël nañ li nga xam ne tey ñooy ñooy ñooy ñooy jën ñu ñëw ci xale yu ndaw yi xale yu jigéen yu ndaw yi nga xam ne ñoom it ñu ngi ci liggéey bi ñu laaj leen ñoom it naka lañ gisee liggéey bu am solo bi nga xam ne moom mooy liggéey soxna si ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay bu am solo bi nga xam ne moom la ñu def fii ci Kelle waaw ah. tey lan nga ñu wax bis bi ngeen xam ne moom ngeen def fii ci Kelle bis wax dëgg yàlla moom neex na macha allah xale yi niñ kiwee liggéey bi ni suuf an fii ñu gis ne suñu mbokk yaa ngi ku ne ngi taxaw rek di xaar li nga xam ne mooy li ngay xéewal gi di sant faal ak di sant ñag waaw waaw ndax koo gis sax ak gaay yooyu ah. dëgg la ñi nga xam ne sax tey booy xool sax eh, wax ji gars yi mënatuñ ko ndax fi mu toll dañoo xiif ak dañoo xiif gisoo waaw gisoo suñu caméraman bi gisoo ko fi mu nekk nii ban ta téye caméra bi sax aca ah. comme nañ ko waxee rek mooy euh, toujours rek euh, ñu ngi nuyu bu baax a baax Géewul Art ak euh, Géewul FM hmm. saa su ne may leen programme bu am rek comme ni ma ko daan waxee rek mooy toujours ni leen koy taxawee parce que tamit am na ñoo xam ne ñu ngi bitim réew tamit dañuy soxla lu mel nii ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñoom it ay comme nañ koy waxee rek mooy nee naa la Alpha tey gis nga teeru bi ni mu ni mu mel waaye nag la naa la ca maam ja ma nga sa sët ba tarkaala Chérif Alwali caatu Maane Ndiaye comme ni ma daan wax rek waaye tamit kenn du Cheikh Mahfou Chérif Ba Aydara di euh, euh, xalifa kër Cheikh Mahfou waa kër Cheikh Mahfou yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant baax di leen ñaanal yàlla kon comme ni ñu koy defee rek mooy gis nga euh, affaire yaa ngi noonu ñuy joxe léegi xam naa si kam tuuti dañuy daay dem rek daay toppaat Chérif parce que suñu cameraman fi mu nekk nii taladul dara talatul dara fi mu nekk nii ndax ah kon Ousmane cameraman dañ koy may rek ñu nit ñu dem ba ci tuuti dallu tuuti ah, bu ko defee rek ñu mën a dellusiwaat ci ngoon gi ñu fàttali leen ngoon gi ah, ah, danañ dem ci tante bi lépp lu fa nekk rek dana leen ko jox jox leen ko direct ak li nga xam ne mooy Gueoulart TV jox leen ko direct yi nga xam ne mooy Gueoul FM fii ci li nga xam ne moom mooy Kell Gueye ñi ngi woon fii ci Kell Gueye ci bis bu am solo bi nga xam ne moom la ñuy def fii ci li nga xam ne tey mooy Kell Gueye di leen wax ne ngoon ngeen ànd ak li nga xam ne mooy mooy Gueoul FM ngeen jàpp rajo yi jël li nga xam ne mooy Gueoul FM Euh, tapé youtube it jël fi nga xam ne mooy Gueoulart TV déglu li nga xam ne moom mooy xewal ci Kelle ci li nga xam ne mooy Chérif Alwali Mané Ndiaye di di sëriñ bi nga xam ne tey di chérif nga xam ne tey mooy marabout de la jeunesse comme ni koy waxee moom tey euh, jeunesse bépp génn nañ tey xam nañu kii seen sëriñ la kon ñu ànd ak yéen ngeen dem ba ci kanam tuuti rek ñu dallu ba ci kanam tuuti rek ñu mën a dellusiwaat ci yéen euh, mën a joxe li nga xam ne moo xew fii ci li nga xam ne mooy Kelle Gueye yeah. seen maam yaaram ku sopp Cheikh na Cheikh Saad bu ne nii say baaraam saalal ilaahi wa saalal wara saada juudi li ahli al-amaam سعد قديمنا لآل المرام بمن الكريم لنيل المرام شيخنا جسد صعد أبي بقنا لفيفك ستار يوم gis ko reng neen laay ku sopp Cheikh na Cheikh Sadbou maami Chérif Alwali Maane Njaay nee leen ni seen baaraam maami Alwali Maane Njaay saadali laay saadali laay maami Chérif Alwali Maane Njaay ko sopp mel ni say maaraam Cheikh na Cheikh Saadu bi bëggoon la fee fekk sa tar gi yow gis ko rek يكون مباركا وخير مقتدي عليه من أكمل صلاتي وأكمل سلامي بصلاتي شيخنا جسد لنا إني نويت ربنا بسفري نحو سودانا وبلاد القدر لا إله إلا الله عالم الخير لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا لا يا عيب الجام زوب ما مشرب ما فشرب أنا لي زي بارم لا إله إلا الله قوجه مو شريف وقدر الجزء دخل مو شريف أما قال ليس بعيد الولي ما نجاي كم قدر الله يا جكو يا كم قدر الله يا جكو آه كم قدر الله يا جكو jugal taxaw jaato jaato yow kum ko jaral jugal dëxëw amat faada lay sa baay المنان المنان لا إله إلا الله فرد صمد لا إله إلا الله تيالا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله أغفنا شر كل ما نشاء حبيبي لا إله إلا الله كمل لنا جميع ما نرضى وهب لنا جميع ما نرضى وربي لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله محمد رسول الله كيف ترى رقيك الأنبياء wu yonen yaa samaan ma taala waaw la misaawu ko fi ulaaka waxat xaayonen la sanan min ka duunam wa sanaawu inama يونس كما مثل النجوم الماء مصباح كل بدر فما فمعتز نور إلى أرضك الأدوار لك ذات العلوم من آل من غيب ينبئ من آل آدم وبدا لوجودي لوجودي منك كريم سيدنا محمد من كريم أباه والكرماء نهزة قلت أصد أولاي بأولاي يلين قال للقام جمال لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا لا إله الله محمد رسول الله يا الله Alhamdulillahirobbilalamin, ar-Rahmani rahim, madikumiddin. Iya kita ngabdur, iya kita nafsin. Eh binasirah. صراط الذين أنعمت عليهم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 وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم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 محمد رسول الله wa ala kulli shay'in qadir bur yàlla la ilaha illa allah anta tawwabu rahim xaala seexina seex saadu labi doomi seexina Cheikh Mouhamad Fadal ibnu maamin taalibal xayaare ku sopp seex na seex saat bu ne ñu magal góor ja janim saat seex saat bu nee na maami sang yaa ngi seex saat bu nee na مامي سنجيانجي نعم الحمد لله الذي قد انفرد بأنه ليس له كفؤا أحد ولم يلد ولم يكن خلقا يراس شيخ بنينا له شريك في الذي منه الجراء ولم يكن لذات اقتداء ولا يرى لوصفه انتهاء الشيخ صد بنينا يحيط بالعين يا الله وليس يدرك خيرا وزكا شيخنا شيخ سعد بنينا هو كريم أي درس ما جاء نين هو كريم ورحم يو يلا والأبد وهو القريب واللطيف والصمد دمان سيتي القرآن شيخنا شيخ سعد بو ngay jël tur yu mag yaa di ca kañ yàlla mooy borom jaam yi nee na ko yow yàlla yaay ku màgg ci yow yàlla yaay ku tedd ki yow yàlla yaay borom yërmande Cheikh na Cheikh Saad bu nee na ko yow yàlla yaay ki fi sax ndàkk doo jóg Cheikh Saad bu nee na yow yàlla yaanu gën a jege ku ñu naan jege nañ la nax nañu la yàllaa la gën a jege ni mu la jegeek ni mu amee ñeewante ci yow moom yàlla zul jalaali wal ikraami nee na Seydina Muhammad ci alquran وإذا سألك إبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وخل سما جامي أجوي لا تكما يواتكولن جبلا ما تصيع نصيح صدبنا الخيو يلا يا قريب يو يلا يا لطيف يو يلا يا سما أسأل الله سبحان وعلى إمام رسله سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد سيدنا محمد كسب رسول الله جبل الحجة بما قينا كبي محمد المصطفى محمد المصطفى محمد المصطفى محمد المصطفى muhammadul mustafa seydina muhammad bu yomal xiyaame ay dara seen maam bu ñëwul mu ñaaw yawma laa yanfa'u maalun wala banuuna illa man ata allah bi qalbin salim su boobaa am qalbin salim mooy ñi bëgg seydina muhammad ku bëgg yonent bi yàlla laabal sa xol ku bëgg yonent bi dootoo iñaan ku bëgg yonent bi dootoo def lu ñaaw te bu boobaa nga am xalbin salim xalbin salim moo lay duggal àjjana kon na ku bëgg a noppalu bëggal waa kër sayidina Muhammad ma ne ku bëgg teraangay àdduna ak àllaaxira bëggal waa kër sayidina Muhammad ku leen bëgg texe nga afiru sliman bil hasimi ya sabbaho yonent ya bi حرام عليك نار قلب أقبه بق قلب بقي ننتبه بيوم القيامة سيرم أرام نصفر متصيح نصيح صاد بنان كبني بك يوم القيامة يو سمم محمد شفينا في المحشر وآله وصحبه ونظري وبعد إني لا يسن بالله من شر ما جنيت في الملا سيحنا سيح صاد بنان يا الله أرجو أن يرحمني في الآخرة حتى أكون إذا الآخرة أي أيدرا أي غانيني لين أيدرا بأيدر tant bi nee leen ay dara tant bi nee leen ay أي ci ay dara أي dara ay dara ay dara ay dara bi ay ku ngeen bokkaloon maam yéena ko gëm maam Seydina Muhammad ay seen maam du gën a bëgg ci doom yi mooy seen maam nee daat min nii Fatima tu soxla wu soxna Fatou may seen ma tax Cheikh Sarko naan fa innana abnaa'i al-Batul wal halu shahida ruha min al-udul aydara leer gaa ngi ci yéen nooru nubuwati alayna la yadul aydara aydara gaañi leen aydara وعالمه وعالمه وعالمه البيت مختار نيو بارما ني دنيا داو داي جا كوكو او يال نغا فيك ديوين سربا ماني سربا ماني سربا تصب سحر مصاعد رجل قلب أو ذكر ما تلقى دومي سيخ محمد فادل دومي سيخ المفو دومي سيخ نصيح سعد الأبي أيدرا أيدرا يا خليفة بي أيدرا أيدرا يا خليفة بي يا توب سيخ مفول دوسايا بمودم Ngatwa po siya saya sabay ba? Topo siya Muhammad Fadal sabay ba? Ya topo siya Muhammad Fadal Fadal mini joyta no pe bunyo ba mo Ya topo siya talibu ya da papanda Eh ya toge khilafa siya khalmafu Na ñepp sar ko leñu magal sey bu ay dara Dagitu garmi buñu cik tabal ci wilaya ni yow lay mel sama mient yalla muhammad la yalla tagge jikko ya sa'ir ba tagge ko jikko yo ya. tagge ko taramba wa azmanu min kallam taraqatu aini ayni muhammad wa wa akmalu minka lam talidi misaw waaye ya nak li gën a neex mooy mubarra'an min kulli aybin yalla setal sama sayyidina muhammad ka annaka xaqlita kama tashao ya mustafa ya mutaba mami sirif sa ya bay mukarramu mami sirif sa ya bay mukarramu leeru sa dara ku sopp sirif sa ya defal ni ñu màggal ko ah, am xamal taala ay dara ay dara ay dara gaañi ne leen ay dara bi ay dara kooku may maami caato caat caato caat ku sopp sëriñ alwali maa ne jaay jugal taxaw jàkkaar ñu màggal ko borom keel gay borom keel gay borom keel gay alwali maa ne njaay borom keel gay alwali maa ne njaay yaa doon wilaaya baateel doon na xam-xam bu nu yërmaane gaañi leen ay dara bi ay dara la ilaha illallah لنا ودانا خير الانبياء مصطفى امام جمال خلق الله لنا رسول الله نانيو ماغال رسول الله رسول الله رسول الله مصطفى سيدنا محمد جوكال تخاو تخاو رسول الله وسلام خبر القداية وكوكب العناية الربانية مصباح رحمة المرسلة وشمس دين الإسلام أنا صبي أنا صبي